Omega, mais Samy, c'est Rita Paradis Massaïba, la Gofaramaren qui est là parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu people ci bi ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne a ah. yaay suma la ma yatee te ma laaj ma jële <laughs> yaay dee laaj seen doom yi fu ñu jële xale bu tuuti bu fetagul ci nen ñëw di la buub xaalis di la jox nga ŋàppaaral wëppaaral bëgg a dërëm na toonat nga bokk ci doo ko laaj fu mu jële waaye xale yi man te xale yaa ngi féroce bëgg a góor ñeme am fit xam nga ñu ñuy génnal seen moroomu baay yi ak seen moroomu maam yi la ñuy génnal benn xale génnatu génnatu ceeg moroomam wala day am moroomam di mbaraan xoola paa ba mu nekkal am leen vergogne am leen vergogne am éducation de base man nag li ma gën a metti mooy yaay di gërëm seen doom yi rek waaw fa tabarakalaaw maa ngi leen di gërëm di leen sant moom kay sama doom di kay doom ju baax la waaw waaw moom kay fi mu teg tànkam ñaan gi yëpp xamul fu doomam di jëlee xaalis doom ja di mbaraan di boroj boroj fu ne mu fay war xale yi balaa maa dee ñu ne dañoo sañse yéen dugg ci seen oto di sinap ay xale yu tuuti fetaguñ ci nen ko ci gis oto la ñuy jaayante oto xale yi def leen tamaay fajar moom gina ma nangit gina ma saay kenn du ko déggati tamaay fajar dootul am ci Sénégal gina ma nangit gina ma hoo kenn du ko déggati parce que xam nga lu tax xale yee wow am fit ñeme bëgg góor seen ndey yi di leen ci gunge amul benn maire bu sa doom di jox xaalis nga naan ko xaalis bi nga ma jox foo jële jëlee déedéet dangay ree kay di ko apprécier ak di ko encourager rek nag bi ngeen laaj seen doom yi fu ñuy jëlee ah dee leen seen doom yi dee leen xool xale yi ci li ñuy dugg dégg naa gouvernement Macky Sall ña ca nekkoon moom xale yi lañ doon doxaan di leen xëpp xaalis bi di leen jëndali oto ak billet d'avion yi ñuy dem ay Dubaay ak yooyu ak ñi nekk ci sër yi du samay wax de Alima ji moo ko wax Alima ji nag dama ko xaw a mere ndax da bàyyi ba jaan ji dem mu topp ca wutit bay dóor waaye nag jamono yooyu ku waxoon dañ lay tëj moo tax muy doog a génn di wax Alima ji day doog a génn di leeral mbir mi bu ma doon nag Sonkoog Jomaay dinaa ko woon ak nekk léegi damaa bëgg nga détailleel ma benn par benn ma xam ndax xam naa ne Jomaay ak Sonko bu ñu ñàkkee fayda ba xale yi tuuti ay ministre di leen jox xaalis askan wi ñoo leen di wàccee ci suuf askan wi dañoo yeewu de ña doon nelew ñoo yee ñiy jayaxu ne leen jug leen xaalisu réew mi lañuy tibb di may xale yu tuuti ku ci nekk nag bu yeboo nga xam ne boutique ba nga yor dinañ ko audité xool ku la ko jox oto ba ngay dawal dinañ ko audité xool ku la ko jox ñu duggalaat ko ci réew mi taxi yi nit ñi fay bari na courant bi bari fay facture yu ndox yi cher location yi ndeket ndekete ñun daal suñu as su askan bi rek la jël di ko yàq man li ma metti ci réew mi bëri jël xaalisu askan bi rek di yàq di jox xale yu tuuti ñuy dem Dubai di dawal oto yi di sañse di challenge di def seeni affaire lii moo xew Sénégal waaye yow nag alima nag nag ndox dëgg fa yàlla alima gaaj yi nag Eh, li nga wax yëpp kontaan naa ci apprécier naa la waaye dangaa yéex a génn fi mu nekk nii moom ci watit bi rek nga topp waaye xam naa nag joomaay ak sonko dinañu wër jaan ba gis ko nag xam nga bi lañ topp di dóor waaye jaan dinañ ko wër ba gis ko ne ko ciix jàpp ko mu indi xaas ñu delloo waat ko ci Sénégal <laughs> xale yooyu am fit koo ci gis mu nga teg greffage am muy lang yor caabi otoom naan nii gàddu caagam xeeyu leen gontu leen as publicité da la ñuy def naan publicité leen ko may publicité gi mën na laa may loolu série bi sa liñ leen ciy fay daa da leen nañ dëriñ dara boo ca fayee la nga cay fay jënd ca sa yére lu cay des yaaxay ti mulaanaa ay waay dimbali leen ñu nag ñun askan wi tamit mën a ku ñoom tamit dimbali leen askan wi askan wi compal leen ñu mën a suqaleku ñoom tamit ci réew mi lañ bokk xaas bi ngeen jël di ko jox xale yi du ngeen ci boole askan wi yow eh loolu dafiy jeex de eh alakama sala naaxira atuy sa sabali bref nee naa la bu ma jugee foofu nag eh, tey Sénégal Sénégal daal tëddee na nu ne xam ngeen Amina moomu nekkoon ci série famille sénégalaise Céline baal ma tëjal ma buntu bi série femme série eh, famille sénégalaise Amina mi ci nekkoon benn waay de moo génn. waaja nee na mook Amina ñoo am doom te Amina ba mu ëmbee lañ ko may jëkkër ji tubaab bi waa tubaab moom ak mayam ci jàkka moom daganul wax dëgg fa yàlla kiiwul euh, compté wul de ak mayeeg tubaab ci jàkka ban tubaab ngeen gis mu tiib tuub ban tubaaba fii jàpp di julli continuer xanaa tubaab yi dem tuubaa ca màggal ga yooyu de moom am na mais ban tubaab ngeen fi gis ñu ne tuub na tuub tuub bu jaar yoon waa ji nga génn di jooy yow nag dama laa mere yow moomu di jooy yow waa ji ndax damaa xam ne dañu ne la jigéen danga koy tànn ni ñuy tànnee góor ci jàkka ban tubaab ngeen gis mu tiib tuub ban tubaab ba fii jàpp di julli continuer xanaa tubaab yi dem tuubaa ca màggal ga yooyu de moom am na mais ban tubaab ngeen fi gis ñu ne tuub na tuub tuub bu jaar yoon waa ji nga génn di jooy yow nag dama laa mere yow moomu di jooy yow waa ndax damaa xam ne dañu ne la jigéen danga koy tànn ni ñuy tànnee góor jigéen danga koy tànn waaye yow nit nga gis ay qualité ay jëfinam Amina man ba ma ko gisee ca série ba euh, série famille sénégalaise ndeysaan mu nga xaaf bopp ba tent ko nga xam ne Amina mi am jooma sàll la tamit ah waaye baal ko rek garaawul àddina amul solo bàyyi ko doom ji ndax boo jëlee doom ji ci moom dangay lor doom ji rek xale bi ngay lor kan moo dangay yor ween yooyu nàmpale amoo ween yooyu nàmpale foo koy nàmpale eh bàyyi ko doom ji doom bu màggee fu mu bëgg a dem dina fa dem bu lool bul lor xale bi bul teg xale bi stress bàyyi leen di xëccoo doom baaxul xëccoo doom baaxul de bàyyi ko ak doomam xale bi bu màggee fu mu bëgg dem dina fa dem yéen nag sénégalais yi nee naa la bu ma jógee foofu damay ñëw ci yéen tàmm ngeen ñaari korité ñaari tabaski ñetti korité na doon benn korité ngeen décidé wandoo ko amul ibaadu ya julli ngeen di doog a julli amul màkka la ñuy xaar bu bu ngeen di julli seen korité na doon benn ay waay ñaari Sénégal amu fi ñaari yàlla amu fi lu tax du ngeen ànd di korité benn benn korité ñii ñuy korité aw waalo ñuy korité aw ndar ñii naan tey la ñii naan suba ñii naan gannaaw suba yéen lu tax du ngeen ànd ci dara te ne ay jullit ngeen chrétiens yi lu ñu xewle dañ cay ànd mais yéen laa gis seen korité di doon ñaar yenn saay seen tabaski doon ñaar fan ngeen ko teg tamit waaye ñu ne yéen ñaari am ngeen droit am ñaari jabar rek ngeen ne yéen am ngeen droit def ñaari korité tamit mais Sénégal loolu daf fi war a jóge eh nguur gu bees gii fi nekk dama ne na exister nit ñi ñu korité benn korité waaye ñii kori ñii du ñu wori ñii naan suba la ñuy xaar ak gisaguñu weer waag ñii naan dañoo jëli ji weer waag dañu koo àbbi ji waaye yéen a am defute am melokaan nag Sénégal yéen a am defute am melokaan nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci fan ñi nga xamante ne dang leen di jël yéen leen jàmm duñ la yéen a jàmm duñ la yéen a salaam di la turum tucc di la def affaire yu soxor yu metti bon soxor iñaan iñañati koy liggéey ñu lay liggéey ngay dem ñuy gor say tànk ne doo dem lii moo Sénégal waaye Sénégal yéen a bon soxor iñaan iñañati nag eh nit ñi dinañu liggéey liggéey bi am ci xaalis bi sol ci yére yi dawal ci oto yi tëdd ci kilim yi lekk ci lekk gi naan ci naan gi waaye yéen soxor te iñaan nag bi ngeen bàyyi nit ñi ñu dund ci jàmm ak salaam ngeen yor seen fitna rek di taal yor seen almet rek di taal ne kenn du am jàmm soxor iñaan iñañati bon sama vidéo xoola bere fag yaaxay ci mulaanaa waru ko woon am a ah, na waar hello guys yaa xayti mulaana bébé va Sidi Diop fompal na la say ronkoñ bul jooyati laa ilaha illallah way na la way wu rëy yaak maam Njaay savon sa mag ji gis nga àddina aka doy waar yenn saa nit jug ne dalay yàqi baaba jaañ yàlla ne na bul wax bul ubbeeku bul jooy bul wax dara maa lay fompal say ronkoñ te bal du tàkk dara du jug xoola lay yàllaa kemtaane nag waa bébé eh bébé yow man xaw ma la woon de maa ngi lay doog a xam xam nga man Sidi man du sama woykat man Maria Sin may sa bigee Maria Sin sama woykat moom rek a ma ñor ci réew mi waaye woy wii la Sidi Diop booy eh woy wi neex na woy wi neex na am na caaj yaa ngi koy challenge lu am jom lu la metti woon tey neex na la boo doon jooy tey fompal na la say ronkoñ boo ko jàppoon benni nit jàpp ko fukk ak juróom eh Sidi sas na la nee na la ci fans yi nga bokk te dara du ko dindi xoolal bébé Eva savourel nag Samson rek di dem <laughs> ay waay àddinaa yéeme nag yenn saa yi nit di la yàqi baaba jaañ yàlla ne la tey laa lay ubbi ubbil buntu xéewal buntu ngéndeel ngeneel te kenn du ci mun dara bébé ba doxalal day na waar